Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdul Aziz maa ngi lay nuyu bu baax baax ci di la ziar ak yéen ñi nga xam ni yéen ngi suivre sonorité sacrée di ci ànd ak kenn bëggul bu Cheikh Seyd Mouhamadini Al Maktoum ñuy waxtaan ak kita ci tawat yi nga xam ni akhirnya lëmbe askan wi ak yi nga xam ni dafay gàllankoor doomu aadama yi tey nag ñu ñëwaat ci këram ngir waxtaan ak moom sëriñ bi maa ngi lay nuyu. bi ngi lay nuyu di la di la ñaanal guddi jàmm ci kàttanu sama borom jërëjëf jërëjëf yow itam ñi ngi lay ñaanal guddik ak jàmm sëriñ bi dañu gisaat ay produits yu nga xam ni dafa mel ni ko renforcer waat ndax am na yu bees yi ci gis sàkk pexe indi woon nañ ko ci suñu émission yi weesu mais dafa mel dafa am wuute ndax gis naa ñaari sàkk pexe yu yu wuute euh, ndax mañ nga ñu wax bi ma téye nii lan mooy lan mooy lan mooy njariñ yi nga xam ni moom nga dëxañ ci biir. waaw xam nga sàkk pexe bi ak bële am nañ différence différence bi mooy bële boo ci am na taux boo ci jël dafay wàcc sa tension voilà moo tax toujours sax ngay dégg ci nit ñi ma leen wax ne même kii lay jox ndoxu siti biy génn ci yaram ak bi lay turloo ndox lu bari yëpp risque nga ci ndax garab bu ne dafa am bu ci nit war a jël poids moo tax sàkk pexe bële ah gis nañ ne début ñu ëpp boo leen ko joxee dafay jeex rek ñu daw jël si waat ko. mais bala ñuy def 15 jours dañuy yëg benn genre métit seen bopp yoo xam ne bokku ci da ngay xam ne tension bu doon yëg da koy wàcc bu doon buy wàcce da koy yéeg te dafa am poids boo ci war a jël léegi mu gi damay obligé dootul ko defati par traitement ndox mais dama koy sponsoriser ak lem nga xam ne dangay lekk ba ci digg bi nga jël ci kuddu soobaa du la gaañ du la indi du la indil benn xeetu hépatique mais loo soxla ci yaram da la ko sa poids même temps bële bu fekkee jigéen bu nekk en état mënu ko jëfandikoo parce que garabu xoos da koo composé garabu mbante maara da koo composé te jigéen bu nekk en état wala bu wérut ñaari gaaf la ci ñoom waruñu ko jëfandikoo parce que bu dee xoos virus la bu dee mbante gaaf la moo tax mag ñi daan la wax ne boo jëlee doomu mbante maara nga jikko ci kër mu sax ci kër doo fa gaaw a jógee gaaf gi ci nekk mooy bu ko nit kiy jëfandikoo mën na lor ku ci biir waaye bu demee ba tollu ci matu ñëpp danañ yëg ne ngay matuñ am na njariñ ci beneen côté mais bu dee jigéen bu wérut moo tax may wax warut jëfandikoo garab boobu xam nga dafay am sama benn njaboot boo xam ne ki démb dafay xaw a tawat dégg génn ci mbedd mi ñu jaay ko ay nee na garabu ndoxu siti la mu jaay ko xëy suba làmmiñ bi fut bu kenn xamul li mu rooti mu bu jëwoo sama benn médecin mu ñëw xool ko ne ma xanaa mu leen wax sa njabot ñu bayyi garabu mbedd yi ma ne ko bokkuñ sama njabot de ci ñi taxaw ci mbeddi mi lañ bokk waye yërmande rek motax may def intervention pour wane de garab muy ken dugul mi la kay jox muy kenen la kay jox il faut nga maîtriser li ngay jox ba para am ci xam-xam bu tok do gañ gor jamono dox top la motax bu de sak pexé bi bi jigen bu nek en état man nako ko du ko gañ te du lor ko ci mom ba da fay protéger njabot bi ci biir parce que kii dañ ko mooñaale ak 366 ayatal kursi même bu nekkee jigéen bu nekkul bi wérul di ko jëfandikoo dafay aar ki ci biir ba caaxaan du ko lor même mag bu xam dara wala nga génne tamit nit fiir la mënul nekk parce que dañ ko protéger ba noppi kon loolu mooy seen différence bu dee bële nag différence am ak bii bokkuñu kii dafa am doole waaw kii ba ma koy liggéey doole ji ma ko composé dafa ëpp doyoo après ginnaaw glace soo nga xam ne poids bi li ñu ci def dafa ëpp moo wàññiwaat poids bi ma wàññiwu ko mais dama xam ne bii comme jigéen bu wérut mënu ko jëfandikoo te ñoom ci askan wi lañ bokk en même temps ki nga xam ne dafa yor tension buy yëge ko wàcc bu ci jëlee poids mu warul jël mën naa gaañ moo tax nga déggoo ma ne sama garab kenn mënu ko am ci mbedd kenn mënu ko am ci boutique même boo ñëwoon ci kër gi fekkoo ma fi góor mënu la ko jox. leer na wala leer <laughs> prix mom ba legi fan la tolo dafa ko wala No garab yi nak beuri wul limay exposer exposé prix ci prix leer parce que jamono biñ tolo moy tax gaaf yu judd ñoo bari moo tax sama lepp dama koy côté tank ñew ba ci daj depp gi emploi bi ci kër gi sax mënu la wax limi jaar bari ci ñi la kay enregistrer mënu la wax produit bi li lay jaar budul man kenn mënu ko jox jërëjëf kon nag mbokk téléspectateurs yi suivre sonorité sacré loolu lañ leen indiloon tey ci euh, émission bi euh, seq ci ak kenn bëggul kon Aziz euh, ba beneen yoon incha allah jërëjëf.